jàngoro ji di coronavirus dafa tàmbaliwaat wulee ñaay fii ci réew mi daanaka doo toog ayu bés te amul ku ci ñàkk bakkanam li ko waral bëri na te wuute. waaw sénégalais moom ñu si bëri respecté wul mesures yi te loolu baaxul ci réew mi et puis tamit nit ñi dañoo soofantal affaire bi te rafetul ci yoon feebar la na ñëpp fagaru li médecin yi wax médecin li ñu wax dañ ko def dañ respecté mesures yi buñ ko defee rek deuxième vague bi ñuy wax. du mun a am doole comme que première vague bi ñëw na sénégalais ndaxante nañ moom ba mu dem deuxième vague bi ñëwaat na nañ góorgóorlu jàppale médecin yi yërëm médecin yi yërëm tamit suñu bopp ñun ñu respecté lépp lu ñu wax bàyyi leen ñu bàyyi bu leen def ñu bañ a def yem leen fii ñu yem moo gën xëccoo bi parce bu gën am doole nii day métti ñun de. ka covid 19 yi di yokku rawatina ci ndakaaru ba tax na njàqare ak tiis la mën a nemmeeku ci xar kanam yu bëri mais sentiment sentiment mais de peur parce que fu mu toll nii yaakaar yoon ni peut-être yaakaaroon ni peut-être dina dina gënoon a mel ni ñàng ni métti na trop moom kañ mooy fagaru rek continuer toujours gars yi di gën a sensibiliser nit ñi ci ci télévision yi ci bépp pour tout pour toute famille pour toute famille surtout surtout les familles man je reproche souvent lool nag ndax jaboot la tiit naa si lool lool ndax ndax jaboot laa waaw maa ngi yor ay élève di yor ay ay doom yi liggéey waaw dëgg yàlla tiit naa si lool ndax jaboot bu ci tiitul rek da ngaa dëggul li xewul ci feebar bi waaye nag maa ngi ñu ngi ko dénk yàlla daal mi nga xam ne moo ko fi indi. yàlla na ko fi yàlla génnee ak jàmm salaam waa te ñaan nañ ko yàlla nag atum ren gii at bu bees bii di dugg balaa moo dugg mu ànd ak moom dem ànd ak décembre bii dem. ci noonu sax ña ngay sàkku ci askan wi respecté digley kër docteur ngir mën a daan mbas mii. là pour sa pour se protéger contre ce fléau il de avait de il di avait des mesures d'hygiène qui été appliquées ici donc avant la deuxième vague alors c'est pour juste porter les masques. et, et respecter la distanciation et ensuite euh, se laver les mains c'est ce qu'ils disent mais maintenant dafa toll fenn foo xamante ni euh, gars yi gëmatul loolu noonu daa gars yi gëmatul loolu noonu c'est-à-dire la population la majeure partie de la population gëmatuñ ni corona bi dafa am te pourtant mu ngi rey ay doomi aadama yu bëri. mooy li médecin yi wax rek beneen pexe boo jël fii lu lu médecin yi wax yaa ngi nax sa bopp te Sénégal dafa bëri ñun ñoo xamante ne dañuy nax seen bopp médecin bi li wax nañ ci nañ ko tegu. médecin bi dafa ne nañ bàyyi joxe loxo bi nañ ko bàyyi nañuy raxasu nañuy raxasu dañuy takk max waaw bu ñu def loolu rek bu yàggee après affaire bi yàlla dinañ dolli sutura mu dem. juróom-ñetti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci Covid 19 bi nikk ci weekend bi ñu ñu tàllal suñu micro di sàkku ci kilifa yi fare ci nguur gi jël ay ndogal yi yees ngir mën a kar jàngoro ji di coronavirus.